di la ñaanu la. maa ngi lay ziar. la bu baax mon frère. Eh, euh, mais Fadam naka mu. maa ngi sant yàlla bu baax. Fadam mbër lu ko fay jar billahi. gis nga Fadam entraînement du caaxaan. du caaxaan. barke yàlla entraînement du caaxaan. mais coach su bi nga gisee état de forme bi nga xam ne nii moom la Modou Lo yor simmeeku bi simmeeku nga gis dos bi gis pectoral bi gis abdominal yi mu rang nga gis si ta def benn serment wane ginnaaw gis trois pièces bi te kaw gis nga xam ne xale bi yokku na bu baax ko su loolu noo ko jàngatee. waaw euh, bu moom du ma bett parce que Modou bi bëreeg euh, bi bëreeg euh, nu mu tuddati waay waay waay waay Boy Niang bokkut ak Modou Lo bi bëreeg dëgg la. bi muy bëri mu bi muy bëri Boy ñaar dama nga xoolaat Modou dafa yokk masse bi yokk puissance bi. donc man Modou Lo man dama foogoon ni mu ngi ci waaj a bàyyi làmb. <laughs> tey la gën a jekk. waaye Modou Lo ma gis nii nii nii nii. tey la a jekk de. mën na cee teg la sax ñetti ñetti yeneen xale. <laughs> parce que li gën a li gën a jafe la Modou def ci bopp bi moo dafa dekk professionnel. <laughs> Mm-hmm. Fadam Fadam professionnalisme lu ko waay jëndee jar na ko. Mm-hmm. mais Fadam balaa maa ñëw sax ci Modou mbër mu la gën a professionnel moo la gën a taxaw Balla saa yu nekkee professionnel am doole. Mm-hmm. mooy saa yu voyagé. mais mu ñëw ci Modou Lo tuuti. Euh, Modou Lo physiquement ak masse bi mu yokk macha allah. man pour man jour bu Modou te Modou Lo comprendre na ko bu sonnul ci diggante bi. mana bo ànd ak récupération bi mu andal ragal na leneen lañuy wax mais du doole diggante mag diggante euh site wala ñu ñëwaat ci modlo. lan ngay xaar ci site ci combat ak modlo waaw man man man site nak gëm na ni borom jom la Fadam. site lu ko way mu ta waxal. mais lan ngay xaar ci mom xam nga site borom jom la. nangu nañ ko mais lan ngay xaar ci mom ci combat bi mu jëm. xam naa dina indi état xam naa ko mhm. li ma koy ragalal mooy mu topp voyage ak mystique ba ba ba ba ñàkk mhm. gis nga bu la ci kenn nax boo bu moytuwul bu moytuwul Siteu du indi fraîcheur ci làmb ji mhm. dama koy ragalal li dal Ama Baldé dal ko ak Boy Niang mooy topp entraînement gu bari gi topp topp topp bi ba réer lu muy def dafa a teel a pare. jour avant jour combat si te ku war a teel a parce que moom day préparation mystique te préparation mystique def avant mais bu ci stade bi day gérer a quelques minutes mu ne la kaay ñu bëri. Mhm. te yow te bàyyi na tuus bu compliqué. Mhm. te day bëgg a mhm. su ma collégraphe lay dem. su ma nekkoon moom du tuus tuus bu rëy. Mhm. bés la bés bu mag lay def. Mhm. barki Demba Ndiaye Balla Gaye wane na ko bi muy bëri Tafatine. Mhm. na teel a ñëw stade parce que moom day def benn préparation mystique day nekk ci leneen ak leneen. bu tardé rek làmbam noyyi wu. te dafa am ay bés yu mag yu mu ñàkk donc il faut mu teel a ñëw ci stade bi pour mën a jël ay repéram. non da nga ne li ngay wax nii da nga koo junju. da nga naan Siteu dafa am bés yu mag yu mu ñàkk yoo xam nii li ko ko gën a xañ mooy folklore bi. waaw waaw waaw waaw waaw waaw surtout combat ma guy gi gis nañ ko. folklore bi la topp ak topp mm-hmm. ambiance bi te combat bii ni du boobu. Mm-hmm. concentration la war a ñëwee du début à la fin. ma duma Siteu li mu li mu am sax ci doole li mu am sax ci entraînement bu mu ko wonee. Mm-hmm. Siteu lu mu war a def lu ne dafa war a bett Modou Lo xanaa xamoo man gëw ma ni man bokk naa si ñi su ma àndoon ak Siteu du ma ko wax mu mu jox xar bi Modou mu jéem a teel a merloo Modou Lo face to face. Mhm. su ma nekkoon su ma nekkoon Siteu dafay def li Modou Lo defoon bi mu bëri am seen digg géew mhm. muy def surprise la war a doon maanaam Modou Lo warul mer mer bi giif te boo ko teelee def day giif professionnel la. Mhm. da nga ko fay def. ci digg géew gi balaa moo giif comme arbitre sifflé. boo ko teelee def Modou Lo xoolal mer teerloo ko merloo léegi yàqul dara comme Ama Baldé moo dofloowul Modou Lo booy yi mënuñoo dofloo Modou Lo donc man loolu laa jàpp mais beneen bi moom mooy Fadam gars yi dañuy juum te man dama la ciy dégg bokkuma ak yow xalaat ci loolu ku bëri Modou ñu leen ñëwal def sañ-sañ li Balla Gaye defoon ñëwal jënd kuu gars bu ñu jëndee kuu Siteu bu jëndee ku Modou Lo kaw mais mais xam nga loolu Modou Lo ñi daw koom ñëpp daf leen a ma du ma ko dawloo mais du ma ko jëlloo. foofu da nga fay ñëw. du ma ko dawloo mais ñi daw koom Modou Lo yëpp dañ ko jël. waaw te biñ ko jëlee ci seen làmb ci la yàqu. mais Fadam kaay ma wax nga daw ak nga ñeme ko da ngay jël coup bi. mais Balla Gaye mais Balla Gaye mais nga préparé man dama bëgg dama bëgg kuy jël coup bi nga préparé ne làmb ji war naa cee jël coup. d' accord naa parce que xam nga lu tax may ragal loo mu jël coup Siteu saa yu jëlee coup day réer. Sa Thiès ëpp na li mu daanee Siteu mooy da ko kaawu. Mm-hmm. te Modou Lo ëpp moo ëpp puissance Sa ci ci mm-hmm. man su ma indi woon Siteu parce que Siteu naturellement naturellement waxuma lu mu liggéey naturellement dafa xaw a yéex dafa xaw a diib. Mm-hmm. donc boo bëggee ñëw ne ko wecceewul koo xamante ne naturellement dafa gaaw muy Modou ci xeex Modou Lo moo koy gën a nekk à l'aise donte ni Modou Lo moo ko ëpp weccetu mbëree man Siteu ci mbappat laa ko gën a gëm que ci ci ci xeex. Modou Lo mbapatul nag du ku ñuy touché nag noonu Fadam xoolal dajaleel xoolal nam Siteu Siteu bu ma nekkoon moom bu mu attardé woo ak boxeur yu dul jeex boxeur yi xam nga su ma nekkoon Siteu lan laay jàng si ñoom moytu waaye ba <laughs> mu jéem a taxaw naan day bagaar ak Modou su ma nekkoon Siteu damay tijji peut-être ak xeex. parce que Modou Lo boo xeebee rek sóobu wax la loon aussi. Ah, foofu foofu solo. ah mais mais xeex boobu muy ibbi tànk bi muy teg dafa arrangé Modou ci côté bagaar. non wax la leen combat bii nii amul lu ci arrangé wul Modou Lo moom ak Siteu. loolu tax ma ne la man ma nekkoon Siteu bu ma nekkoon Siteu. benn mhm. bu arbitre sifflé danaa soofal combat bi parce que Modou Lo kaay la leen de Modou Lo saay combat bi soofee moom it day def ay erreur de day day day day day def lu ko neex. c'est vrai professionnel là mais mais mais dama gis dama gis ne Boy Niang daf ko cadré xaw a soofal combat bi Modou ci cokkaas ko arrière Boy est-ce que Modou est-ce que calcul bi Modou def face à Boy Niang gëm ni Boy Niang la est-ce que dana ko defal Siteu est-ce que gëm na loolu. wala tamit damay dem est xébul bu boba du du ne non du Siteu bi momay téy téye. xam nga question boobu posé naa ko Modou Lo Bantamba TV. ma laaj ko ne ko Modou bi nangam mu a ma Fadam mu ne ma man ki ma bokkal ndey at baay laa la wax suñ doon bëri sax dama koy jox. waaw mais xam nga dégg nga sànq dégg nga sànq Aziz ne la Balla Gaye Balla Gaye bu ñu wax bu jël bu jël combat tey nga dee moom moo gën a neex ci Balla Gaye bu jël combat bu yomb xam nga wax na la ko. mais ndax méthode yi Balla Gaye di bëri ak méthode yi Modou Lo di benn la du benn maanaam fi ma lay waxee moom mooy Modou Lo saa yu yaakaaree ni kii ndaanaan la par exemple xam nga na leen ko bu yàgg Boy Niang ndaanaan la maanaam cër gi mu Boy Niang est-ce que dina ko jox Siteu non phénomène bu mel ni Siteu de man yaakaaruma ne nit dina bëri moom te doo ko jox li moom ah Modou Lo Modou Lo nag bu combat taxawee nii bu Siteu taxawee léwtoo léwtoo bu dib indi li mu indi face à face Modou Lo day soobu de lu leer laa de hmm? amul Lo def nañu ko Lac de Guiers def na ay erreur yu bari face à Lac de Guiers def na xolal forcer na Lac de Guiers parce que pour mom Lac de Guiers du ma se bari te Modou Lo parfois day bëgg tan daan na dem yonam pour man erreur mais mais mais man tay ji ba légui indi goo ma solution ci def non mais Siteu kay ma wax la Siteu indi loo ma solution Siteu na ñoom mbapat ak Modou Lo li kenn xolal Modou Lo bu bes bi nga xamantene kenn jàppagul ngembam kenn jàppagul ngembam xam nga kenn jàppagul ngembam Siteu na ñëw jàpp ngemb Modou ci bërëb bi la Siteu ëppee chance ci xeex bi. Fadam <laughs> léegi nag foofu nag nga ma dugal nag Fala lay posé sama question bi. waaw Modou képp kuy jàpp si ngembam rek. dóor na la. am possibilité pour mun naa duma. waaw ndax Modou Lo pour nga ñëw. bu jàpp ngembam sax pour moom moom potentiel am jël góosam lànk la ko pour droite am mën a dal 100 pour cent donc koy jaral. mais Fadam Fadam. loolu kuy jël si Modou Lo la man waxuma Siteu mu jël si Modou man bokkuma si ñi gëm ni Siteu dafa war a jëli Modou Lo man gëw ma gis nga jëli Modou Lo jëli Modou ni mu jigee Balla Gaye na gaay bañ a jël bu ma nekkoon du ma sax teg kasetu Balla Gaye Modou li ci bàllagee Gaye newul si ñoom sañ-sañ xam nga Modou moom leer na ko leer na ko ni Balla nag da ñeme ñemeentu ko ñemeentu ko da ko leer Modou ba pare loolu tax Balla Gaye di am sañ-sañu def li muy def face à Modou Lo ba pare daf ko mën mëninam la parce que Modou da koy may li mu mëne mais ñii du ñu Gaye face à Modou Lo na gars yi bàyyi di naan ba Modou Lo ku ko bëgg a daan da ñëw dox ci kawam indil ko sañ-sañ nangam na loolu li ci jig Balla Gaye jigu ci Ama Baldé jigu ci Boy Niang jigu ko ñii nañu bàyyi parfois ba Modou Lo di def ay erreur ñu koy exploité man damaa gëm ni Siteu bu taxawee xool Modou Lo Modou di ko xool ñuy léewtoo sans déclenchement Modou day jékki-jékki sonk ji Siteu man lu ma gëm la mais attaque boobu Modou Lo nga xam ne bu koy def demi flexion lay ñëwee ci kaw mbër Modou defee ci kaw Siteu Siteu ndax war na ci arrière Modou Lo man damay taseeg Modou Lo man ma nekkoon Siteu ma nekkoon Siteu mën naa def benn arrière ba Modou Lo sóobu ma taseeg moom mais Fadam bu leen bu attention Modou Lo saa yu song day def ay erreur parfois mbëri yi ñoo ko ragal rek loolu daf ci am aussi Modou Lo saa yu lay jël si saa yu jël si day def erreur parce que day gëm nit ñi dañ maa ragal Modou Lo mbëri ñu bëri dañ ko ragal bu leen di jël si ragal loolu daf ci am mais ay chance su Siteu laa bëgg ñu taxawee tuuti ndax Modou loo yi xaw nañ cee yàgg Siteu yenn chance la am ci diggante moom Modou loo yoo xam ne nii warut a génn ci préparation ndax damay bañ tamit moom mu préparé bés ba bañ a préparé athlète bi ndax da leen rek athlète boo xam ne nii qualité yi mu dajale ci làmb daa bari. su ma nekkoon Siteu bala balaa balaa ñoo ñëw ci làmb ji xoolal lu ma entraîné benn danaa ko récupéré cinq. billaahi la yow yow yaa ngi yow ci fraîcheur physique bi si taw bi billaahi laa la wax fadam bu Siteu toppee mystique ak entraînement ba oos bu ñëwee combat bi day yomb ci Modou gis nga voyage yu bëri na yeble voyage yi daanul Modou ci lima ma gëm récupération bu doy mooy daan moduloo ak ñëw bëre ak Modou ci mbapat na ñëw chance am ni chance fi mu nekk ci mbapat la ak rallonge parce que nous yalla may rallonge te comme ni ma la si parfois day mais si comme ni la 80% quatre mais aussi ci ci ci wax solo combat promotion combat royal Fadam attention combat royal yi Modou Lo ak Bombardier amuñu sponsor parfois Aziz Ndiaye mu la koy wax mu neex nit ñi mu nit le porteur de projet qui porte projet dafa am solo gis nga Bombardier Moudlo, combat royal la sponsor Matar Diop subatel teel je me rappelle très bien m'a ngi avant bi daa da nga doon dégg ñu naan la coproduction la ak Modou Lo Modou Lo lañ ko avancé ak kenn xamul gis nga parfois man su ma nekkoon Papa Sow na dem xooli ji gars yi nga xamante mën nañ koo indil plus ñu daal di tëgg seen événement mu doon événement bu jaar yoon mais combat bu toll noonu mënul ñëw ba heure bii ñu naan am na am na ay sponsor rek wala yenn sponsor